jaam waaw wóor na wóor na moom faatu rek fa yàlla waaw bokkut ma baqaratu waaye nag. asalaamaaleykum. Hmm? ah Ndiaye. Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye maa ngi ci koor gi Ndiaye. Ndiaye Mbaw Sarkala. Mbaw Mbaw Ndela Ndiaye. wuyu ma. ok ah, ah. wuyu ma. Oh, Ndiaye maa ngi tuub waaw. ndax fekkoon nga ma may def yëf yi njóobeen. waaw dëgg la kay. ndax man fa dama am kii ba tax na may def yëf yi waaw naa koy jégalu. Euh, gis nga yow Ndiaye. waaw alhamdulilah laay wax. alhamdulilah ndax yow da ngaa baax. Mhm. Eh, bi la yàlla teggilee koo ba léegi nii yaa ngi koy làq boo dee lekk da ngay làq maam yaa ngi wormaal koor gi daal wax dëgg yàlla ma am kersa fi waaw moo tax sax tey jii sax ma ni woon naa ba bëccëg gi waaw nee na cooree nag ñëw seet si la sonn rek sonn rek sonn rek koor gi tàng na metti na yow nag sëñ Mbow waaw yow da ngaa da ngaa da ngaa bés yàlla fay la koor lay def. ah alhamdulilah waay ay waay alhamdulilah waay ah, euh, nag moom dama fee ñëwoon. ngir waxtaan ak yow. ah fi mu toll nii sonn naa de. yow nag mboq ngaa la lu war a sonal. Ndiaye fi am naa lu may yëg ci sama yaram loo xam ne daal xam naa ne dawal ma ko yëg sama yaram. wér war di la wér euh, di fi mu yii yii tempa yi jeex na. oh. dégg nga yii fi mu toll nii daanaka der gi rek moo may dimbali der gi der gi rek fi mu toll nii moom moom moom bu dul doon der gi du ma mën a ñëw fii tey. waaw Mbow yow nag boo xoolee sa bopp. xool ma xam ne nii da yàlla dogal nii yéen yàlla ko na nag sa médecin boobu nga xam ne moo la daan seet sa euh, at mu jot. waaw moom laa bëgg mu seet ma. mu waaye njaay bu ne ma mukk mukk Ndiaye li may yëg maa ko xam. xam nga tax ma wax la loolu. waaw baal sa caaxaan yi nga nekk. maa ko jëmm nga xam nga ne man ngaa ma bind rek nga tuuti xiibam ma waree damay ndaw laa yor yow machine bu mag nga yor waral. Ndiaye machine bu mag taxut a wér yaa may dégg wool ma sa médecin bi muy jàmbar sama yaram. waaw ah, ma woo la ko. waaw woo ko boo ko woowee mu wax ma ne ma munumaa woor ndax man xam naa ne munumaa woor. noppi rek noppi rek. man noppi rek noppi rek tuuti rek. Ah. ne ko mënu maa woor waaye. déglu rek déglu déglu. waaw. kooku ah, booy médecin. waaw man la sa bàyyi si waaw kay ne ko na ñëw nii. waaw na nga def nag. naka koor gi. woo ko fi jàmmante. waaw yaa ngi woor. waaye Njaay ba jàmmante. ne ko na rek moom. waaw wuyu ma. waaw. waaw foo toll noonu. waaw kay malheureusement yegg si ci kër gi. waaw kay na ñëw na ñëw. waaw yaa yegg sa appareil bi. waaw kay yegg si yegg si léegi nag booy ñëw man daa ma jënd ko ci sareet non man dañu war mu gën ndax sama kër gi daa yàq. waaw kay waaw kay jërëjëf Ndiaye moom da nga def saay saay waaye moom nag moom baax nga. moo tax mu bëgg ngay tey. waaw kay neex mu kaw ñëw. léegi man xam naa ne est-ce que ma sumbi ko sax balaa ñëw. jarul ko ndax mu gën a gaaw. Oh, jarul ko mbaw ngaa la. sëñ Ndao sëñ Ndao. tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi booy wegse waaw xam nga man da ngay faral di def waxtu koor bu dubsee da nga xam nga jël sa machine boobu fu ne nga dugal ko ci sama yaram wi xool sama accessoire na sa soirée da nga xam ni ma mënoo woor xam nga man mënumaa woor kii nag moom daa wër ba pare bëgg a woor bëgg da ngay càmbar ko wax ko li la ma léegi rek nañoo kat nañoo kat. waaw yow yow moom sëñ Ndiaye yow xoolal naa la bu baax yow moom mënoo woon. Ah, waaw kay waaw kay waaw léegi nañoo kat nañoo kat ah, waaw kay eh, eh, eh, Boy Thiam. man li nekk sama yaram yi nga xam na waaw man bir na ma ni moom. boo ma seetee. di nga di nga ma teg a nga yow nga defal ndax fi may wax ak yow nii organes ma oh, yow daal yëral rek ma sumee ko ma ah, sumee ko ma sumee ko. waaw waaw sumee ko sumee ko rek yow kay mbaw daal bu soobee moom sëñ bi moom daal la seet moom. na jàll mais te gannaaw. dafa dëgg der gi nag mais. moom moom daal la seet moom. der gi day de. waaw déedéet déedéet moom. déedéet moom der gi. soxla la dàgg tekkil dàgg bi. xaaral rek xaaral rek. waaw waaw tekkil dàgg bi. xaaral rek tekkil dàgg bi. gaaw tuuti ndax sombi bëgg naa du ma. waaw waaw waaw. ok bisimilah bu ma seetee moom wuyu ma wuyu ma xaar ma jaral ma kot la ak xulun lum gi. Ndiaye bàyyi rek Ndiaye bàyyi rek man xam naa moom biir na ma ni moom maa la gën a métti le moom. oh. bàyyi feebar bi la. feebar bi la waaw. jaral nu kurun gungi nu kurun gungi kurun ginnaaw mi. oh. ak mën naa wóor mën naa wóor. baax na baax ok kay kay jàppal kii bi. waaw ça y est. ça y est seetlu waaw moom moom. Hmm. koor moom gis nga bi. Ah. moom moom daa dali lu baax. mënu ma ko yàlla da ko digle. waaw waaw dëgg la waaw. mais nag xool naa ko moom mais gisuma benn jàngoro ci yow. Oh! man non benn jàngoro ci yow. man mii benn benn jàngoro kay gisuma ko. da ngay kàcc gisuma da ah, ah! dara kat. te ah! eh, dara. yow da ngeen a fabriqué. dara. may ma tuuti ma wax la. Euh, bon koor dafa doon loo xam ne yàlla moo ko digle. waay waay wax gone waay. douze mois. waaw benn mois. doon ci mois boo xam ne si lépp loolu def. sawru mu baax daf ko fulal yaa ngi dégg kon buñ ko sàggane. dëgg la kay. buñ ko sàggane bis bu ñëwee nañ ci dem ba mu